عبدي وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا عبدي وشكري مع الكل بيسارا لو إذن دون سقط عند سرسارا لو سناي وردوان بلا سقط مسقط لي من بني بيمان أنصارا عبدي وشكري مع يحب fi teew yëpp ñu ngi tuub bu baax te jéggulu kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanam suñuy kilifa muy sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada na fi yàgg lool te ànd ak wér ak soxna maam Issa Mbacke bin sëñ Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba Eh, yàlla rek boole leen ak bokk boolewaat leen tam liggéey bi nga xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa la muy liggéeyu Sarsara eh, sëñ bi itam jiital gi ko yàlla jiital ci kanam mbooloo mi ak waa réew mi ñun itam ñu ñëw nangul ko ko bu baax a baax fas yéene topp ci ginnaawam eh, ak mboolem bokki soxna si mu àndal soxna Ndey Mbàkke mi ngi ni toog moom soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke dina ak soxna Ndey Saynu Mbàkke rakkam ak kilifa yu bari yu sant Mbàkke yu ñu àndal yàlla boole leen seenu bokk ngir jëm suñ borom ngeen di ko rafetal kon sëriñ bi délégation bi soxna si àndal yëpp ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaare di la xamal rek ne la lim daan wax rek lay wax ndax euh, sëñ Abdu Lahat wax ne loo am attan koo joxe ngir yàlla rek foo gees gis ku la ko jox ngir yàlla loo am attanoo koo joxe ngir yàlla boo doon wër àddina ba mu daj doo gis ku la ko attana jox ngir yàlla nee na tam loolu waxi sëñ Tuubaa la te bi mu koy laata wax da jaar ba jàll soog koo wax kon nag moom nam la ko waxee woon rek neen noonu la koy feddaleewaat liggéey bi moom dafa ñëw rek ngir jàppale la ci ndax sab liggéey la ndax euh, ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu kon nag moom loolu nangul ko bu baax a baax te fas yéene itam waxtu wu nekk rek lépp lu ngeen nekk mu fas yéene ñëw jàppale leen ci ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa xanaa di sàkku rek nga dolli ko ñaan bu baax a baax a baax yàlla gën koo yombalal liggéey bu baax ndax Sarsara tam liggéey bi nekkul liggéey bu yomb liggéey bu jafe la te tam yàlla da koo def muy njaboot te tam njaboot gi tam lu ne àttan na ko ci ñoom euh, wi ah laaj na yu baree baree baree bëri waaye nag lépp moom dina ci def lim man ak lu munut ndax sëñ Tuubaa doo yem ci defal ko loo man rek ndax danga koy defal loo man defal ko loo munut euh, ndax euh, jóge Sénégal ñëw ba euh, Mauritanie Nouakchott rek dafa jafe rawatina nga dem ba Sarsara waaye bu ñu fàttalikoo suñ mag ñu baax ñi nga xam ne ñu doon jógee ci réew ma di dox ñun nu metti metti ci ñu nag danañ ko mën a muñ kon nag nee na nga gën koo dolli ñaan te gën koo dolli njaboot gi ndax ñi ko yàlla booleel mu ànd ak ñoom kat ay boroomi jom lañ ñu bëgg sëñ tubaa lañ ñoo xam ne dara ñoru leen lu may làq ngërëmal sëriñ tubaa te xam nañ ne fii mën nañ ko fee làqe kon nag nee na mi ngi ci seen ginnaaw di feddaliwaat kóllëre gi di ñaan yàlla mu teel ñu ko ci barkeb sëriñ tubaa ba liggéey bi ñu am ci ndam liggéey bu mag ba la ñu sumbutam ca sarsaara muy jumaa ja am waxtu ne tam mi ngi def ay soññe di ci def ay jéego incha allahu taala loolu tam mi ngi ciy soññaat bokki taalibe yëpp kenn ku nekk gën cee takkaat laxasaay gën cee góorgóorluwaat xam naa su yàlla dogalee ñu dem fële ca sarsaara ah ba mbooloo mi daje niñ ko daan waxee rek sëñ Tuubaa mbooloo mi rek ñooy alalam fu mbooloo mi daje rek eh, war nañoo mën a fexe ba ginnaaw sar-sar at mu jot benn yoon lay doon benn yoon boobu buñ dajee eh, sëriñ bi joxe ndigal ci donga yi kenn ku nekk wut loo ci mën a def ndax eh, nit ñi buñ dajee rek acca murit ji lañ fa mën a génne buñ tasaaroo waatee dootu yomb a génne waaye ginnaaw yaay yaay yaay yaay kilifa gi nag ñun dañ dul sañ def dara teguñ ko ci ndigal moo tax loolu tam tàkku ci sa ndigal ak ndigalu soxna si nañ ko daan defee bu ñu demaatee ba àgg ci tam ñu ñu ñu jaayanteeg Serigne Touba ca barab boobee nga xam ne ku fa àgg sab xol num naatoon dana yokk te sa xol bu bu nangoo rek euh, joxe dootu nekk jafe-jafe ndax suñu laaj da ne nawet bu nangoom xol yu nangoo ko gën xol yi nangul nañ Serigne kon loolu tam Mbàkke ñu ngi koy sàkkuwaat ci yow soxna si jiite liggéey bi mm-hmm. suñu àggaatee ca barab ba bu bëkk tali bi yëpp daje ñu defaat ab soññ ci jumaa ji ndax wax dëgg yàlla Euh, liggéey bi war naa war naa gën a dox bu baax a baax a baax a baax loolu daal ñu ngi koy sàkku di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér liggéey bi sëriñ Mountakha teg ci sa loxo tey sëriñ Touba yàlla defal la ci tawféex te defal ko ci tawféex ngeen yàgg koo ànd euh, ñun taalibe itam ñu topp rek seen ginnaaw ndax loolu mooy suñu warteef ndax yàllaa leen boole seen bokk kon ñun taalibe moom li war ci ñun rek mooy di ko rafetal ak di ko dëgëral euh, loola képp ku ciy taxaw moom yaa ngi ci li la war te loola ci lañ yéene nekk incha allahu taala kon nag ñu ngi sala sant di la gërëm di sant ñi nga àndal ñëpp ci bokk yi fédération bi tam ñëw nañ Touba waxtaan ak ñun gàttan suñu fële ca Ronso li ñu waroon def lépp ak ñun def nañ ko euh, di la seereel nag suñ bokki taalibe yi nga xam ne ñoom dañoo nekk fii ñoom muy waa euh, Sarsara wala Xadi Karam naa ñoom kat sëriñ bi wax dëgg yàlla euh, def na defal na nu tiraanga bu nu war a defal ba sax weesu la nu waroon defal te suñu ko defee sa jëmma tax ndax yaa leen ci jox ndigal kon nag ñu ngi sant waa wala Xadi Karam naa Sarsara ci njiitu suñ Babacar di la ko seedeel di ñaan tam nga gën leen a ñaanal yàlla dool leen tawféex ndax mbooloo mi ñu àndal bari na waaye biñ ñëwee ba léegi noppalu wuñ nañ leen fekke woon ñu taxaw di ñu gàttandu ba léegi ci noonu lañ nekk takk seen i ndigg laxasaayu te sëñ Tuubaa rek jaral leen ko kon kat sëñ bëgg nañ nag nga ñaanal leen baax ba yàlla gën leen a dolli xéewal ndax ñoom suñu amee xéewal rek ngeen am leen baax xam ne daal soxna sant na leen gërëm na leen ñi soxna si àndal tam sant nañ leen gërëm na leen loo leen dolli ci ñaan rek mbàkkee doyut ndax ñoom seen i taxawaay rafet na baax a baax waa presse ñu àndal tam ànd gi ñu ànd ak ñoom jubluñ ci dara lu may di yokk Sarsara rek nit ñi gën koo xam loolu tam lu ñu ci def rek yow lañ ko defal kon nag ñoom itam ñu ngi sàkku nga ñaanal leen bu baax baax ndax ñoom itam dañu bàyyi seen iti bàyyi lépp te lañ ñu waroon a teg buñ ñu ko ñu ko jëmmi Sëriñ Tuubaa rek tax ñu ànd ak soxna si kon ginnaaw yooyu itam bi loolu itam ñu ngi la koy leen ñoom itam yàlla defal leen tawfeex gu yaatu yaatu yaatu ba ko ci ko bëggee loolu daal moo nekkoon kàddu yi ñu ngi jégg lu baax lu ci dëng rek ci ñun la waaye daal li gën a ñor ci wax ji daal mooy wala xadd karam naa sar daal soxna sant na leen cant goo xam ne Mbàkke dañ la koy seereel ndax ginnaaw yaa fi nekk ñoom di seen kilifa te waaw moom daal sëñ bi lu ñu am loo leen ñaanal rek loo leen ñaanal rek doy su fekkoon ne amul fulla wala amul fayda wala doxul ci sëriñ Touba du gis menn mbokkam ndax Serigne Touba ji moom ñoo ko bokk nit nag mën na la cee jiitu waaye du te yéen ko bokk te Serigne Touba di nit ku mat koo xam ne kenn ku ne boo lambee sa bopp da def ne ci yow doo nga la jublu kon kenn ku ne bu doon loola barke nga cay séentu wala teraanga wala leneen da ngay tëdd sa kër waaye nag ñun ñi war a liggéeyee Sëriñ Tuubaa dañ ciy war a jiitu ñu gis ko muy jàmbaar joo xam ne aw doxinam kenn mënu koo dab kon nag sañ nañoo ànd ak moom nu ci suñu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ah Mbàkke nag yow nga war a xam ne yow yaay kilifa ñëpp te loolu xam nga ko te yaa ngi koy doxee waaye soxna maam Isa mais Mbàkke sañuñu ko sax waaye ñoo ngi lay ñaan sa sa maam yu baax yi ngeen bokk ngeen gën a jàppante gën a ànd ndax loolu kan Mbàkke mooy sagub yoonu murit mooy sunub sag ndax yéen nu fi indi seen maama nu fi indi liggéeyal seen maam rek moo nu fi indi kon nag sunu sañoon bu ñëwee lu sag bi yokku mi ngi fi sax waaye nag danoo bëgg rek mu gën a yokk gën a rafet gën a baax ndax man li ma leen di wax rek nee neen Serigne Touba day man lu ma ca bokk-bokk lu ma ca ñora lam ne ak taaliba gisul lu ko gën fam ko jëlee lu mu gisul lu ko gën nag loola rek a gën kon nag ñun taaliba Serigne Touba rek la mm-hmm. kon nag ñun séqunoo Serigne Touba lu gëm ko ak warmaal lu mu am waaye nag lu ngeen nu gën a ubbil Mbàkke nu gën a sant lu ngeen nu gën a yaatal lu gën a sant maam Issa nag nit ku baax la ko am pastéef la koo xam ne du geesu dara dégluwul dara déggul dara kon nag Mbàkke loolu mënu na koo ñàkk seere ndax dañ di ay bokkam te ànd ak moom nga ñu bëgg nga xam li tax ñu ànd ak moom loolu rek tax ñu di ci jiital ñu di ci eh, sànni kàddu yi tey jéglu bu baax nag ndax ñun bu ngeen toogee saxul ñu wax dara Mbàkke jërëjëf ñu lay xamal ni yow yaay moom dégg mooy mooy mooy yow ndax nee na fa fa nga nekk moom nga fa nekkal fii tamit yow la fi nekkal kon euh, lépp daal mi ngi koy gën a yeesalaat bu baax a baax a baax a baax euh, diggante bi te xam ni sëriñ Touba moo leen boole boole leen ngeen war a ànd liggéey sëriñ bi kon nee na daal loolu mi ngi koy téye bu baax a baax a baax a baax. Mhm. waaw. Euh, wax lu yaatu ma di ko xatal mhm. waaw liggéey suñ tubaab bi mhm. euh, euh, dañ koo bokk mhm. mu ngeen am ci seen cër rek waaw cër bi nag euh, amul kenn ku leen ko mën a mën a xañ waaw ñu nit nekkewuñ fi lenn sàmmal leen seen cër yooyu ak képp ku ci am cër rek am fexe ba ba cëram daal dara bañ ci manqué te moom mii kat li muy li muy di di def doxinam wi ci bis bi boobu def naa ne moom lañ njëkk a gis jubul ku ci ku ci doxee nii kon nag ku ci fekk si rek moom dana ci am yoolu bopp dana ci am yoolu di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku xàll aw yoon bu baax am nga yool ak yoolu ku la ci topp ok nee na moom daal li mu si gën a leeralaat da ko gën a yeesalaat mooy eh, la suñ waajur bu baax ba waxoon ñoom seen waajur bu baax mooy Serigne Saliou nee na du fekk lu yàlla eh, yaatal moo koy xatal te nee na Serigne Touba kenn ku nekk cër ba nga saam waxtu nekk day gën a yaatu waaye du xat eh, te nee na eh, sarsar ji ban koy sos soxna si bokk na si ñu ñin fi njëkk a gis boobu ba léegi bàyyiwut ndax man xam naa si dara ndax fii laa jànge ba ñuy commencé sarsar ba léegi soxna si si ñu ko sos ci la bokk kon eh, sëriñ bi nee na loolu boobu léegi nag jógoo ca kon mu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax ndax nee na yonent bi dafa wax ne képp ku xàll aw yoon eh, yoon la mu yaatu yaatu yaatu yiw yëpp maanaam day dellu siwaat si si yow kon eh, li ngay def yàlla gis na ko yonent bi gis na ko Sëriñ baa gis na ko nee na nag eh, li mu koy tëje mooy ñaanal la suñu borom yàggal sa taxawaay te xam ni fas yéene wut a tàqali ko yow benn yoon neen daal waxtu nekk mi ngi yeesal sa diggante ak moom ndax xam na fi nga ko teg ak ni nga ko jàppe kon du def lu ñaanal la suñ borom euh, taxawu la ba yéene ji nga xam ne am nga ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sarsara yàlla kàttan na la ba euh, ba nga mën a def lépp yaa ñi nga àndal na waaw <laughs> seen seen cër la. waaw nee na lii kat soxna si seen cër la. waaw te ci ci maanaam cër la yoo xam ne dara bàyyiwuñu fi lu sàmm ko rek. nee na cër la yoo xam ne dara bàyyiwuñu fi lu ñu sàmm bañ cee manqué. dara bañ cee manqué. kon euh, sàmmal leen ko ak it képp koo xam ne rek am nga ci cër. nee na sàmmal leen ak képp koo xam ne am nga ci cër. waaw ndax ndax ndax moom euh, sëñ Tuubaa moom ni ñu ko waxee sànq rek. Mm. di sëñ Saliou wax ne. lu ma fekk mukk lu yaatu ma di ko xatal. nee na ni mu waxee sànq rek nee na Sëñ Tuubaa moom la Sëñ Saaliw mu fekk lu lu yaatu mukk mu koy xatal. waaw kon sàmmal leen rek ñu fi bàyyi. waaw nee na sàmmal leen rek moo leen fi bàyyi. waaw kon kon gis sëb cër la. nee na kon loolu sax sax sëb cër te te ba nga ba nga ko waxee sànq ba ba nga fii ba nga fii ñëw di fi ñëwee nii. nee ni mu ko waxee sànq ba nga fii ñëw di fi ñëwee nii. boobu amul woon keneen. boobu amul woon keneen. kon nag euh, ku la ci fekk si rek. ku la ci fekk si tamit. da ngay am yoolu li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku ku aw yoon dangay nga am yoolu euh, jë xàll ga nga ko xàll ak ak ku la ci topp nee na ku la ci fekk tamit da ngay am yoolub la yonente boo xam ne ku xàll aw yoon dangay am euh, tiyaaba ja ca ñi nga xam ne maam ñoo la ci fekk si ci yoon waaw ci ca yoon bu baax woowu nga xàll kon nag sëriñ bi nee mi ngi sant bu baax di la gërëm waaw jërëjëf kon waaw sëriñ bi nee mi ngi lay ñaanal bu baax di la sant kon Mbàkke nga def ñaan rek ñaan ñu daal di mën Mbàkke sa yooyu sant na ñëpp